قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا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 فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد dhalika li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna allaha bi kulli shay'in alim i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المسرفين ساكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها سقيا وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل أو كرا قالتا أتينا طائعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين صدق الله العظيم lii lañ wax keroog ca saal ba léegi sëriñ bi loolu mun na ko ñaan rek ñu nangul ñu ko sëriñ Maxtaar bisimilah kaamil bii nag loolu kaamil boo xam ne kaamil la boo xam ne kaamil bi bind ci loxo ci loxo lañ ko bind di doomu sëñ Maxtaar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من innahu kaana haliman ghafuura وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدي ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيئ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان وما لنا ألا نتوكل على الله ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن أو لتعودن في ملتنا فأوحي إليهم ربهم ربكم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم muy première fois ñu teewe ko ndax borom liggéey bi dafay liggéey ci suuf waaye daanaka du kuy yëgle ndax li tax ñu jël fi kàddu bu doon kuy yëgle danañ ànd ak délégation bu mag ñëw ngir lan jëf ju baax joo xam ni mbooloo ko war a seere te mbooloo yëgandoon waaye daanaka ci ngoon laa koy jot téléphone rek ñu waxtaan mu ne ma am na tari bu ndaw bu ñu def ca daara ji ma ne ko kon faaw ma waaye bi ma egsee yi ma gisul mooy la Sëriñ tubaab bëggoon ci dëgg bi rek ndax danaan wax ni wajaalhu daban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi loolu yi nga xam ne nag moom la boroom dëkk bi bëggoon sëñ Maxtar kenn ci kenoy kenew yi la ndax ku ñëw ci réalisation yu am solo yi nga xam ni def na ko fii loolu moom du kenn mënu ko wedd waaye équipe bi ànd ak moom muy jàngalekat yi ñu dégg fi mbokk mu baax di suñu mbokk sëriñ xaadim ñang di kuñ xam ci terrain bi mu yàgg def ay résultat loolu it du ñu bett tey day wane jikko ju rafet bi sëñ maxtaar ak ku xamu àddunaam ndax lépp looy def ndax man ngaa dem defal ko sa bopp am na yenn moyens bu amee waaye fekk ña ca nekkoon loolu reconnaissance la ak nangu lu baax kon boo àndee ko mel ni sëñ xaadim ñang ci liggéey bu mel nii maanaam résultat yi xam nañ du mën a ñàkk waaye nangu nga ànd ak moom it dafay tegtale ak modeste waaye dafay tegtale ak xam fi nga jëm moo tax biñ ñëwee wax dëgg yàlla fekk nañ fa résultat yu am solo yoo xam ni yàgg nañ ko dégg waaye tey teg nañ ci suñu bët moo tax ñu ngi nuyu kilifa yu fekk yépp nag buñ limee dañuy juum waaye ñu ngi leen di ziar di leen balwaax eh, li tax ñu jël kàddu nag mooy lépp dafa aju ci liggéey bi te suñu borom dafay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay wax ni man lam yashkuri naasa lam yashkuri allah ba noppi it sëñ Tuubaa mi nga xam ni moom la ñuy liggéeyal maanaam muy koo xam ni képp ku ne ci aw waaram lépp loo ci mbiram moom day ko yàlla tàggatal àdduna ak xoli nit ñi ñun bu ñu xasee tudd sëriñ ñu xam ni jaral na la dara ñun yawet da nga ñuy jaral lu ne waaye leneen lu mën a doon nag mën nañ caa teey bu fekkee ne demewul noonu muy bi ñuy présenté dañoo wax ne ñun ñoo jiite jaayisatu Cheikh Ahmad Bamba Khadimu sa al alamiya waaye il faut ma leeral leen ni leen sëñ Maxtaar membre fondateur la ndax bañ koy njëkk woote jataay yu njëkk ya kenn jiitu ko ci ñaareel ba yet ci Sénégal ak ci àdduna bi Sëriñ Tuubaa am na fu ne lu ne waaye daaw bi ñu koy def bu ñu doon xool ci wàllu plan financement ndax ku wax jaayisa mooy ab prix ngay yëkkati di wuutu Serigne Touba ci jaa neexal gim daan neexal ak ñaan gim ñaanoon ni daa bëgg diirub ak ak dundam te ak dundam mooy feeg mission àdduna di dox ak dundam mi ngi fi ndax njabootam a ngi fi moom it jógu fi loolu mu waxoon ko ni wajaal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alquran zil ayati mooy sponsorisé mboolem koo xam ne danga nga yëngu ci alquran loolee ña ca doon wutu daaw ci wàllu financement ci jaayi saam bu mag boobu kenn mënu ci sëñ Maxtaar kon nag bu fekkente yow da ngaa yor loo day sëkk fii ci daara ji waaye loo dégg ci biir dëkk bi rawatina lu ñuy defal sëriñ tubaa maanaam sa loxo dem ca loolu dimension boobu ñu dañ la cee war a roy tey loolu exemple exemple nga ci ndax wax dëgg yàlla ku ñëw fii li nga fi def ci ay ay ay réalisation wa indiasaad yoo xam ni yu am solo la ñëpp teg seen bët boo ci yamoon mu doy sëkk nag jërë ngeen jëf yal na leen yàlla def mag yal na leen yàlla def mag yal na leen yàlla def mag maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam di jaafal jaajëfal Seyxil Xadim di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba di sant it mbokk yi fi teew yépp di ahlul quraan ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñi ma féete ku nga xam ni seenub yëngu ak seen lépp alxuraan la ñi féete soow féete gànnaar féete yëpp ñu leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziyaar bu baax a baax a baax dañu jublu woon rek ci liy bégal sunu doom yii sunu doom yii da ci am xam ni mënees na ko wax jële ko ci làmmiñ waaye dana jóge fu sori ci sunu xol ndax sunuy doom lañu te xam nañ ni suñuy doom lañ tey doomoo nañ leen ndax alxuraan luy loolu mooy ñoom ñii di xale yi ñu yàlla booleel ñu nekk ci daara ji ak doom yi ma jur wala ñi jaar ci ñun suñu boroom jaarale ko ci ñun day mel ni sax ñoom ñoo ëpp sañ-sañ ci ci man ndax loolu alxuraan moo ko moo ko waral bari naa ci ay xarit lool ak i soppe am na ci ñoo xam ne sax macha allah dafa am lu may faral di def mooy maanaam boo wàccee foog ma lëng la lëng maanaam lëng ñoom xam nañ bu baax lëng lëng mooy foog ma jël sama loxo teg ci sa mbag yi yéeg ak yow ci escalier yi yegg jox la pom walla ma jox la boisson loolu moom jàmbaar dëgg koy am jàmbaar dëgg ku ma lëng rek nga romb fee rek boo ñëwee di nga wàccaale pom ak yu xeetu yu masrubaat yu am solo loolu nag li ko war waral alxuraan day tax ñu gën a góorgóorlu ba ndeysaan am na ci loo xam ne duma ko fàtte ku daw yaram koo xam ni mus naa ñëw fii wisit am ci xale bu ndaw di wax yaay ji ni ko sëñ bi dafa maa lëngagum gis na may lëngee rek mu ne ko lëngaguma ma ne ko nag yow eggagoo fu ñu la war a lëng ndax sëñ bi boo wàccul mokkaloo du la mën a lëng kon alhamdulilahi rabil góor góorlu leen eh, ñi ngi sant bu baax di jël nuyoo bi di ko teg ci sëriñ Sawit sëriñ Abou sëriñ Cheikh Bamba ngeen tegal ñu ko ci loxo bi ñu fi nekk ñëpp ndax li ak cant rek la cant ndax ko xam barab bi ni mu ni mu fi ñu toog ni mu li mu tàmbalee woon bu ñu la bu ñu wax bu ñu santee sëñ Tuubaa rek war na ndax mbaarum seng moo fi tàmbali woon mbaarum seng moo dama koy wax lu bari fii fuleur yi nekk fi la mbaarum seng bi nekkoon moo jug lépp kon tëbuñu tëb rek étage bi suñ ginnaaw nekk faay ci mbaar lañ tàmbale woon dër jóge ci mbaar dem ci gablil yi def ko gablil di ci jàngale ba yàlla dogal lii ba kon jaar nañ ci bëgg ko gëstu ko wuti ko ba am ko defal ko sëñ Tuubaa nag kon ñi ngi sant yàlla bu baax tari bi ren naru woon a am sax dañ ko naroon nag waaye fa lool lool waaye seen sañse yi masha allah kon nag xale yi col gii ma leen solal yéene woon naa col gu ko ëpp bu ma sañoon or ngeen di sol wala jamaa yéene naa woon lu ëpp lii ma leen solal yéene woon naa lu ko ëpp yéene naa leen lool su ma sañoon tey or ngeen di sol li gën a rafet li gën a li gën a gën a yéemu bala seeni waajure ñëw ma defal leen ko wallahi lancé kon ñu ngi sant bu baax fii nag daara la ni ñu koy waxee du kër daara la daara moom sëñ tubaa ko moom al këru alquran la te buñ jox sëriñ tubaa sëñ Abdou Xaadar di leen gën di seetloo damay wax ni fii sunu nekk ak sunu ñàkk a ak lépp jox nañ ko alquran génne nañ ko ci lépp lu nu moom jox ko sëñ tubaa loola it lañ ci jublu mooy eh, li ñu sëñ tubaa defal fees na ba tuuru comme fees na ba tuur nag te mënuñu koo sante dara lott nañ ci buñ jëloon li ñu am ci àdduna lépp jox ko ko du tax ñu mën koo dab ci cant ci lim ñu defal kon lii nga xam ne moom bokk na ci li ñu njëkk moom tam leewuñu doom te duggoon ci suñuy loxo 2000 damay wax waxtu wu ne ni jox nañ ko alxuraanul karim waaw leneen lu ca topp mën kon ñi ngi ñaan yéen ñi seen doom yi mokkal alquranul karim ren ci daara ji na leen gën a taxaw bu baax ndax mokkal baax na waaye nag day am lu ca topp mooy fexe ba duñu fëtt fexe ba it ni ko ñi waxee ñu amaat beneen xam-xam bu ci boole loolu nag am nañ naal wu rëy woo xam ni dañ ko waxoon fii daaw waaye suñ borom mi sottal sottal na ko ndax man damay wax nii du may dinaa bëgg bu ñu teg xeer ngay woote boo ñu demee ba toll waaye damay bëgg di wane lu pare lu noppi ndax ki may jox laa xam muy sëñ Tuubaa may bëgg a defar ba mu noppi rek ma doog a wane ma tax lu matul fii ci tëli bii yàlla yenkeewal nañu fi fukki pàkk yoo xam ni nekk na ci mbeddum 60 mètres ak 10 mètres ak 20 mètres naal wala ñu fa naar it mënuñu du ci du sunu du sunu man-man ndax ku forom moom wala nga jaar fa di nga nga yéemu waaye bu kenn yéemu ci sunu jëmm nañu yéemu ci sëñ Tuubaa may liggéey loo rek waaw man daal saa bu ma xëyee ba sol sëñ ji di daal damay jàpp ne dama war a liggéeyal sëñ Tuubaa tàllal ko samay loxo nag lépp lu nit di am wala lu nit jombaliwul boppam ci indil ko sëñ Tuubaa ci dëkkam bii ci alxuraanul karim ci xam-xam damay jàpp ni man kenn duma ci ëpp la kon loolu ñu ngi leen ci wax yéen paanaa yëpp ngeen xam ni moomunu ko ndax tubaa dañ damay faral di wax damay faral ni boo boo jëlee ak garab sax nga defal ko nit ci buntu këram boo ca dul jàpp garab ga day dee ndax du ko roose danaan la sa gi boo tampale daara mu ne la sa daara ji nga taxawal loo taxawal rek waaye dafa am lu nit moom ak loo xam ni ñëpp a ko bokk ndax lu ñu jël loo xam ni muy daara wala école wala lu man doon ñu def ko ci dëkku Sëñ Tuubaa bi moomeel tur aw tur la ci waaye da nga ko fi baax te mënoo koo yóbbu kenn mënatu ko ndax mënoo jaay daara ji ab école wala jumaat kenn mënatu koo jaay kon loolu ñëpp a ko bokk lu ñëpp bokk nag ñëpp war a maase ñëpp taxaw ca ñëpp defar kon sëñ daara yi ñu ngi leen di sant bu baax di jiital sëriñ cant gi sëriñ Xaadim Ñang ci njabootam gi fi teew macha allah nga xam ni lépp moom daara ji fu mu yegg mooma jaar ci sëñ Abdul sëriñ aale ngeen jot li ñu ñëpp al imam ñoom ñoom soxna màgg su ma limee dinaa juum ñëpp ndax bi ñuy joxee rek xéewal yi di joxe li ñuy wax ku tari ba noppi léeg-léeg ñu jël ñu ne ah sëñ aale léeg-léeg ñu jël ñu ne ah ndey daara ma ne ah borom daara ji xanaa moom borom daara ji ci la war a bokk ci li ñuy joxe ndax daanaka xale it xale yi ma ne ah sama yàlla xam na fi ma toog ndax looloo xawoon a euh, toqal sama bët ndax dama ne ah xale yi de ku leen joxoon man la ñuy jox moom ndax xam naa nu ma mel ak ñoom bëgguñ ma bëgg ndeket yote ñoom am na lu ñu ma waajal ba di ma ko jox kon nag loolu alhamdulilah ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen wax ngeen góorgóorlu seen waajur yu indiwu leen fii ta at yu néew ngeen jàng alquran jàng xam-xam delluwaat ci ñoom kon góorgóorlu leen lii ñu leen defal bëgg ngeen baax jub tegu ci aw yoon rek moo tax ñuy sonn ci yéen kon ginnaaw dama dama leen di wax léeg-léeg ma ni leen yéen lu ngeen war defal seen waajur yu ëllëg andi nañ leen ci daara ngeen di lekk lu neex di tëdd fu neex di sangu ni ngeen ko war a defee te duñu leen dóor dóor yu metti bu ngeen màggee lu ngeen war a def nag mooy kenn ku ne gën ni sa waajur daa am lu muy génne di benn dërëm wala ñaari dërëm di la ko jox da ko war a delloo jukkal jooju kon góorgóor leen bu baax a baax a baax. soxna yu baax yi ndax soxna it foog ñu sant leen. Euh, jigéen ñi man dama du ma fekkee visite bi waaye euh, boo xoolee tey jii sax ci jataay bi da ngay xam ni jàmbaar lañu cest à góor ñi jàmbaar lañ waaye nag jigéen ñi jàmbaar lañ lool loolu nag li ko waral mooy jigéen ñi am ngeen jaajëf gu rëy rëy góor góorlu leen bu baax lii dara gënu ko ndaje mu ngeen dem ci àdduna ak lu ngeen fa joxe ak lu ngeen fa def ñëw ci seen doom yi teral leen te alxuraan tax ndax doom ji mokkal alxuraan moom alhamdulilah yàlla jagleelu ko ñëpp kon ku ko yàlla jagleel war ngaa ñëw di ko taxaw kon nag góor ñi nañ jigéen ñi melit nañ ci gën a góor góorgóorlu bu baax ñoom jàmbaar lañ jàmbaar lañ ci nemmeeku ci visite yi xañ na sax ah, góor a nekk ca ginnaaw di leen jàppale waaye daal seen sax jigéen ñi moom jàmbaar lañ jàmbaar gu am solo gu am solo moo tax gone yi nag dañoo dañoo baaxoo ñoom ni ma ko waxee bu tayee boo leen nee sax dama leen jëndal nag ñu ne suba ginaar lañ bëgg léeg-léeg ñu ne lii lañ bëgg ñoom ñooy bëgg waaw ñoom fii ñooy bëgg moo tax ren dañ ne ñoom dem poroxaan lañ bëgg nga xam ne loolu kon danaa leen ko neexale danaa leen wutal bii su sedd guy yu rëy yoo xam ne macha allah dugal leen ci yóbbu leen ba ca soxna jaara ngeen ziyaare ji ko loolu yéen moo ko ñaanoon kon dinaa leen ko may jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di sant école bi ni ñu ko waxee ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi di jàngale nga xam ni fii ngeen gis nii ci kaw nii lii mooy daara ji waaye lii école la ci kaw fi la classe yi nekk ñoo dëkk kenn ku ne da nga fi am sa néeg ki amum néegam rek waaye école a ngi ci kaw waaye yàlla dogal na ba école di tijjuwaat danañ mën a génn fii jàll fële ca sanc ba la ñuy wax insha allahu rabbi bëgg nañ fii yëpp ut bii di ñëw ñu fa war a liggéey ñëpp waxtaan nañu ñu war a yore école bi yëpp waxtaan nañ ba juboo ci kàddu ñoom ñëpp danañ leen jël ñu féete fa tàmbali def escure képp koo xam ne am nga sa doom yoo xam ne bëgg nga mu jàng franco arabe wala bëgg nga mu jàng français wala bëgg nga mu nekk ci majalis bu dëgër macha allah yooyu yëpp xeet yooyu yëpp danañ ko fa def incha allahu rabbi yemuñu ci ñu ngi ci programme bëgg bëggit bëgguñu xale bi jàng kese génn te du am métier bëgg na nañu ay barab yoo xam ni danañ fa naal li ñuy wax métier nga xam dinga mën a am alquran mën a am français waaye amaale métier boo génnee mën a jariñ sa bopp mën a jariñ say waajur ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سؤلنا على من ظلمنا وانظرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة